Euh, ma dugg ci directement. Ah. ma di leen wax ni muy suñu maire commune ñun muy suñu maire commune ak suñu délégué général suñu maire Isaaxa ministre maire Isaaxa Diop bu aju waaw liggéey bi bu aju woon ci moom hmm. kon nëgë ni dañu naan bis sàngam la ñu hmm. li ko ci war lépp def na ko mooy fu mu toll mi ngi waxtaan ak délégué fu mu toll mi ngi waxtaan ak man mii di wax ak yow ci pour nañu dugg ci liggéey bi nañ foncé ci liggéey bi nañ engagé ci liggéey bi kon liggéey bi tardé wul ci maire liggéey bi tardé wul ci délégué général marché bi muy Baye Laye liggéey bi tardé wul ci comité de gestion bi ànd ak moom. parce que ma ne la ki def recensement ba def pose première pierre organiser gendarmerie bu toll nii génnee marché bi ñu ñëw toog est que nit ku sa conscience tranquille mën nañ laa gëmloo ne la commerçant yi commerçante ñoo bañ liggéey bi suñ ko doon bañ ci début bi lañ koy bañ mais bañuñu bi nga xamante ni nag dem nañu ba nga xamante ni lépp jàll na ñu war a jublu ci aspect technique bi muy kanting bu ne ki ko moom. suy hmm. génn ci lu muy génn ciy dugg ci lu muy duggaat liggéey bi lu muy diire ku ne sa alal ndax boo paree da nga ciy jotaat yaa faatu nag responsabilité foofu la commencé. Hmm. maa liggéey bu AGETIP nga xamante ni ci début ba ci Abdoulaye Diouf saar ba nag ne mi ngi ci waxtaan ak ñun. Hmm. li état du Sénégal muy président Macky Sall waxoon. waxoon ak ñun moom saa bu ñu masaan a toog ak moom loolu la ñuy wax. ñu woowee téléphone it ca loola la ne moom. kooku moom aussi dama koy seede. maire Issakha Diop ci loolu lay wax. li leen président wax dara du ko dindi. mais waaw mais problème bi mooy. Euh, suñ borom dafa dogal bi affaire yi jàllee réunion bi yaa Fatou Diagne njëkk woote woote ko mairie de la ville woo na maanaam wopp maire Pikine Nord maire maire Pikine Est association yi regroupement des familles mm-hmm. yépp mu woo leen ba ci ba ci euh, association di xawma jeune xawma lan c'est-à-dire mairie ba fees del ñun ñi nga xamante ni ñooy commercant yi ak représenté commerçant yi commerçante yi biñ ñuy suba la ci guddi la ñuy dog di suñu convocation te ñun ñoom ñun la affaire bi impacté ñu lànk demuñu ñu toog gisuñu ñu ñu def seen réunion bi mu génnee communiqué bi mu def presse bu wër ko daf ne insha allah suñu tabaxee ba pare dañuy seet cantine yi dañ koy jaay commerçant yi ñu naa ah, jot jaay jaay waaw ñu ne nag ah jot na nag ñu toog bi ñu préfet woowee ñu ne ko ñun li ñu dégg yaa faatu wax ko ñun d'accord ci loolu du ñu moom suñu alal ñu ñu koy jaayaat te président waxut loolu. mais toxal bi euh, toxal bi waxoo ci de fan lañ leen doon toxal. non toxal bi moom ñaari chute yoo xamante ni benn bi ci biir jumaa ji. Hmm. benn bi ci biir bassin bi. Hmm. yooyu yëpp waxoon nañ ko ba d'accord ci. kon ki nangu ku la toxal xam nga ne ba ñu nga tabaxal ko hmm. mais bi nga xamante ni yàlla dogal na préfet ci boppam ma koy nuy à moom tamit muy préfet Cheikh Ndiaye bu Pikine bépp médiation boo xamante ni yaakaar na ne su ko defee liggéey bi dañ avancé rek def na ko ñu toogee ci mairie la ville ñu wooñu réunion mairie de la ville ñu toog préfet sous-préfet toog maire de la ville ndawam toog Isaaxa toog ñun ñu toog yaa faatu bi muy introduire mu waxaat la même chose mu ne suñu paree dañuy seet waxtaan ba déggoo seet commerçant yi ñu jaay leen foofu nag ci la réunion bi ak kalaatee ñu essencenté ci man ak moom ba mu gis boppam ñu gis suñu bopp mm-hmm. bàyyi laay mi délégué bi ne réunion bi mënatul a parce que yaa faatu jaay lay wax te ñun kenn duñu jaay mm-hmm. beneen ba ci des mooy considération bi ko war ci suñu diggante ñun ñu représenté commerçant yi xëy yaakaar na ni responsabilité àgg na fa suñu responsabilité àggul moo bi mu la a lu waaye am yéene nañ la ko waaye ñun li ñu am doy nañu te nag képp kuy wax ak ñun wala ngay jëflante ak ñun xool ci suñu mbubb yu tilim yi ak fa nga ñu fekk ñu dafa jaay ba mën nañoo considérer du ñu def yow foofu loolu rek mooy mooy problème mais na président xam ni ak état du Sénégal